daanaka lii dalay woon leer ne ñii di ko indi nii du du egsi mais tamit ndeysaan doo xam loo leen di wax wala bu ñu jubalee hôpital ba pare ba ñu nga xamante ni amuñu ci pexe ñu mm-hmm. woo la yow boo jàkkaarloog ñoom rek da ngay xam ne lii nag kii dangar bi yéeg na wala yéegu te am na foo xam ne bu fa xasee ba egg bu xasee ba egg ci kër bi rek loolu kenn mënatu ci dara. kenn mënatu ci dara. waaw soxna Khadija ba tey tamit euh, parce que sànq ba tey bi ñu dalee waxtaan. Mhm. maa ngi gis euh, atu bi mu ngi bouger en tout moment. Mhm. mais yow à tout moment bu bouger rek yaa ngi am ci looy def ci moom yaa ngi def ay affaire daal comprendre ma loolu mu demee. waaw parce que xam nga ñoom ñii dañuy dégg ñun dañuy wax ak moom dañuy ñoom ñoom dañuy dégg ñun dañuy dégg li ñuy wax ñun ñoom itam dañuy dégg ñun ñi nga xam ne loolu lañ leen di kàddu. ah kon jaan dañuy dégg. dañuy dégg kay. léegi yow mën nga ñoo ñamal ci lu ñuy dégg pour ma mën a leen. ah ni may waxee ak yow nii rek njaddi ndax dégg mais yéen dafa am loo leen di wax ci suuf waaw dafa am lu leen di wax ci suuf ah, waaw loolu pour ñoom la noonu la fa demee <laughs> léegi ba tey tamit du ma ñëw euh, ci ki nga xamante ne mooy Marème Faye Sall première dame mhm. parce que yow tey jii jigéen nga moom mu nekk jigéen jiite fee comment dirais-je un euh, palais mhm. léegi yow tey jii nii euh, Marème fay Sall bu la woowoon tey jii ne la daa bëgg nga dugal pare jaan bi foofu noonu pour defal ko fa ay affaire parce que temps yi dégg nga euh, saltige yi génn nañ ne accident yi dina bëri affaire yooyu noonu léegi yow loolu nan nga ko gisee. ah waaw waaw su ma woowoon ma ñëw su ma woowee damay dem ba foofu yóbbul ko ko ndax moom mooy première dame nag te ñun as lu lu soxal askan wi rek ci la ñu nekk de. ndax man sax am na benn kii bu ma jëloon sax maa ngi ko ci boobu maa ngi koy wax soxla nañ ku ñu jàppale ndax des fois aussi da ngay wax dëgg li ñu naan rëy comme ñun li ñuy def dañ koy def te yàlla tax séntu ci dara des fois ñu dem ay nit yoo xam ne dërëm duñ fa toppee te dañuy jël suñu paas yaa ma dégg bu ñu amul paas sax dañ koy dox mën naa ni pour dimbali nit rek bu ñu waree ñibbisi wala ñu stock wala dara te xam nga ni jamono ji doy na waar yor luy lore di bokk nit ñi ci oto yi di buux buux loo da ngay obligé yow da ngay da sax da ngay sonn wala nga dem jàpp ji fenn jaan tey ji mënoo koo jàpp rek ne dama koy dem jógu fee wala dama da ngay day ànd ak yow bëj sa kër moo tax soxla nañ tamit wax dëgg yàlla ñi nga xamante ni nii ñoom ñoo fi nekk te mën ñoo dimbali ñu jéem autorité ñu jéem ñoo recevoir ñu wax ak ñun ndax ñun tamit ay nit kese lañ liggéey bii ñuy def nii defuñu ko feneen fii lañ ko def Sénégal ak ñeneen ñu ko soxla ñoo xam ñu ñu ñu ñu mën faa dem mais ñoom tamit dañ ñoo war a jàppale jox ñu ay waruwaay yoo xamante ni buñ ñu woowoon

yaa ngi yor jaan mais métier bi nga nekk am na ñeneen ak ñeneen ñu ci nekk mhm. ñooñu nan ngay dundee ñoom parce que métier Sénégal daanaka ñu ci nekk ñëpp ay riverains lañ mhm. léegi loolu laa la bëggoon laaj nan ngay dundee ak ñi nga xamante ne ñoo yor jaan yi ñeneen ñi waaw man moom du ma rivalante man ci ay ci ay jaan ndax kenn ku ci nekk sa xam-xam ngay demee kenn ku ci nekk sa xam-xam ngay demee yaa may dégg parce que tey ji yow l'essentiel mooy yow li nga li nga xamante ne moom nga incarné na nga ko mën mhm. loolu rek mooy bi ba buñ ñee acca doo xaar kenn waaw dangay dangay dem ba mu jeex yow tamit mm-hmm. waaw loolu la. kon mbokku téléspe mbokku internet yi dégg ngeen li leen soxna euh, Khadija wax soxna Khadija yaayu jaan dégg ngeen lu mu leen wax nee na mi ngi ñaan autorité yëpp ñëpp di ko déglu di ko bàyyi xel. ndax defe naa ne moom actuellement ni ku soxla ci ñum réew la ndax gis nga li nga xamante ne mooy nawet bi bëri na te nawet bi heure bu ñëwee jaan yi day génn jasit yi day génn yeew yi day génn ngeen jàppale ko bu baax ki nga xamante ne mooy soxna Khadija bu yaayu jaan soxna Khadija. Euh, lan ngay tàggatoo te nga joxaan ñu sa numéro téléphone. waaw man moom maa ngi defaat comme noonu rek waaw di ñaanal ñëpp jàmm. di ñaanal ñëpp jàmm naan Sénégal waaw yal na fi jàmm yàgg biir réewum bitim réew nag. waaw suñu mbokk yi nga xam ne ñoo ne ci biti tamit di liggéey yàlla na leen yàlla defal jàmm ba ñu mën a dellusiwaat fii si suñu réew. waaw defal ko suñu mag ñu baax ñëpp nag ñu nga xam ne ñoo fi nekk. waaw di gërëm sama yaay sam papa Mbayang Samb di gërëm ñëpp daal sama bàyyi ma kenn daal wax dëgg yàlla. numéro téléphone bi. waaw numéro téléphone bi nag 77 la. Mhm. nga def 100. 63 64. Mhm. bamtuwaat ko ndax mbokk téléspectateur yi xam nga ne instant bi ñëpp a ngi bàyyi li ngeen. da ngay def seetaan 77. Mhm. def 100 def 63 def 64 ñu gën ko xam ci 1 mhm. double 0 63 64. ku la bëgg a fekk fan lay ñëw. mën nga ñëw amoo deux bu fekkee maa ngi aussi mën nga ñëw foofu. mën nga ñëw Thiès kon suñu mbokk internet yi yéen ko déggandoo li ñu jotoon na am ci temps jeex na dégg ngeen li leen Khadija wax yaay jàng. képp ku ko soxla rek boo ko woowee ci numéro téléphone boobu ak adresse boobu boo demee dina la fekk foofu te dina la fajal say soxla bu baax mantam baax man tamit duma fàtte ko nga xamante ne sama caméraman bii di moomu sama Thomas nee naa la moom lu yemb ci ginnaaw moom la Cheikh King mang lay jaar lu bëri di la déggee borom King production nekk foofu ca Amérique di luar euh, buso busa bu Serigne Sali nga xamante ne tubaab fakkaale moom macha allah derrière les caméras rek. <laughs> jaajëf maa ngi fàttewoon aussi kii aussi dañ ci liggéey problème mu ci ay problème mu mhm, problème mu tamit aussi neer sciatique. Mhm. waaw te loolu yëpp tamit aussi ci lay. ci bi kon ko déggandoo. Mhm. la suite bi keneen lay doon jeexagul de fii lay xewee King Production bu ko kenn raté